19 doxalal 19. kon man maa fi nekk. waaw xoojo bi ñaaree ma jàpp ko. kon mbokk ñu si ñu ngi leen di jaare bu baax a baax a baax ñu ngi jëm ci combat samedi le 19 novembre 2021 combat nag boo xam ne nii yaakaar naa ne combat maanaam li nga waxeeti mer gemb laa ko mën a tuddee ndax nag mbër mu ni wax Guiro Seras dëkk fee ca diggante Parcelles Assainies Golf ak Grand Médine nag loolu moo sonal waa Bawol daan nag Nokia. ñu déet na waay mu teg ci kan mu toog ci ténor numéro 2 fii ci Colobane Ndiaye Tine nag ne léegi mooy faj mer ma Fallou Ndiaye ne kaay leen ma boole leen kon ñu xool kon kaay leen gaa yi yéen ñi seetaan Ndiaye a ngi nii lan lay mujj wax balaa balaa sam kon mu rafet a ngi taxaw mu doon daa ngi taxaw ñu nuyu ñëpp Ndiaye Ndiaye jege ñal mi koy dëgg avancé tuuti Ndiaye ñu lay ziar waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ba ñu junne ci yonent bi di sant waa Colobane gépp gépp gépp gépp waaw di masawu coono lii waa koñ bi di leen baalu ak ci lii dérangement bi maa leen ciy jéglu bu baax baax a baax a baax di leen ci baalu ak waaw te xam ne affaire yi moo demee noonu quoi ñu jégal ñu ci bu baax baax a baax balaa ñu dugg waaw di sant képp koo xamante ni teew na fii képp ku fi teg sa tànk rek maa lay ñaanal jàmm ak salaam di la yàlla di la ñaanal yàlla dafa la fan gudd ak di am am na am naa kontaan trop trop trop trop ñoom waaw di nuyu waa Bawol gépp nag bu ma limee damay juum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 le samedi. combat bi ba mu ñor la gars yi wuyul gars yi nañu. waaw lam la rek ah, lam la rek. lam la rek nga def ko. dama xam ne dama xam ne lam la rek pare maanaam ni nga ko pare yow yaa wax ne. ni nga ko pare daaw ni pare ay combat lu loolu. man maa ko pareel sama bopp. lu tax loolu loolu lañ bëgg xam lu tax. xam li may xaar moo tax ma moo tax ma pare ko noonu. wala adversaire bi moo wex xat. adversaire yi ñi ma bëreel ñoo ko gën a danseré fuuf. bokk fi ma jaar jaaru faak fi ma jaar ñi ma bëreel bëreel ak ñoom. moom Giro Seras moom Giro Seras. laaj ah. le 19 soreedul wax ji jarul muy bëri fi mu toll nii ji moo moo ëpp wax ji quoi. Ah. waaw noonu la demee. Ndiaye sànq dañoo gis si bi ñu gis la dafa mel ni bare. ñun ku ñu xam avancé tuuti jege suñu micro waaw xam ne lépp la ñuy bare leen loo xamante ni négocier lépp du ñu suul tàng lépp a ngi fi lépp a ngi fi bu ñu dugoon ci salle musculation mbaa ñu dem ja suusa ba ma fekkoon foofu mais mais ah. Giro Seras boo xoolee bi muy bëreeg Nokia wala bi muy bëreeg ki nga xam ne moom mooy tonnerre numéro 2 bëre pire la leen daane. non loolu bëre bu sew a sew a sew la yor. bëre bandi sax na boobu tonnerre jàll na ba mu din moo fi sa instant yi. di ñaan yàlla yóbbu ñu jéeg jàmm ak salaam. waaw loolu rek moo ñu intéressé fi mu doon nii. mais xeetu bëre bi muy bëre yow gis nga ko. xooluma ko sax man aw ma habitude boobu di am adversaire di xoo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 xalaatam ma la wax rek lam ji moom bu la ku la ne di yombit ku ma ne di yombit ci man it dina la may nax hmm. waaw képp ku lam ji di yomb man xam naa li may xam naa fi may jëm xam naa fi may teg sama di ñaan yàlla buur yàlla yóbbu ñu ci salaam waaw loolu la ñuy ñaan quoi nee na nag ëppoo ko doole benn yoon parce que kuy dalanteeg aada booy bawal booy fay seen écurie ñu ko ëpp góor daal dàq laa bëre moo fa góor daal balaa nga koy xam ngeen dalante mën na xaw moom mais moom it xam lu ne ci man mosuñoo hmm. noyoo sax mosuñu koo def waaw mosu ngeen noyoon différence combat léegi léegi nee nga ni liggéey rek liggéey rek wóor waaw loolu la rek waaw liggéey lu ko teg quoi noonu la demee waaw fu mu ko mën a parce que Guiro Séras ñu bëri ñu ngi naan war ma a man ba muy bëre ba maa ngi ci emprunté wu maa ngi yi lang waaw man moo ma jëkk a dugg ci lam fuuf man combat Boy Niang bii laa jëkk Garga Mbossé ci laa jëkk a takk lam ci laa jëkk a takk ngem Demba Diop Demba Diop Garga Mbossé ci laa a bëre te maa ngi sama dixième combat fi mu toll nii ah. te moom ba muy bëre maa maa ngi emprunté wu ah. moom mu ngi ci xam a quatorze combat a quinze maa ngi ci dix ah. waaw kon su ko la déggee ça veut la sa côté sama côté daa teel a bëre a bëre du mag non mag la parce que moom ma jiitu ci man nangu naa ne moo ma jiitu ci ah. waaw mais bu bés baa di ñoo xam dinañu xam kan mooy kan mooy kan mais Ndiaye ci xeex bi mën nañoo ngeen samp jaaga dóoral ma door war yi du am ci combat a mën a am lu mu laaj rek pare nañu hmm. ci kattan yàlla mu mel ni combat dañoo gis ni nga wàññi poids lan ngay waajal nga wàññi entraînement yi métti rek moom bu jaare yoon métti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 waaw ñun loolu rek lañ ci am. na jëndal booy billet rek. waaw noonu la deme waaw. ci côté mobilisation bi. waaw côté mobilisation bi gis nga li fi nekk te eh, am na ga bawol bool yi moom di ñu aaral ba ci di ñuy joobi genn wàll gi xaaj gi yëpp wàccaguñu mais bu bés ba samedi gars yi maa leen di wax ñu teel a xëy mi di ñu wàcc une heure ñu ñëw añ trois heures ñu demee sat loolu rek laa leen ñaan. li ci des sama yëf yi bopp la dinaa ko gérer. yaa koy gérer noonu la demee.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 mën naa gaaw mën na yeex lu mu laaj rek. bu la ci gën a lu mu laaj rek. bu ma sañoon ñëw door mu daanu. arbitre na fiir balaa arbitre bee toog ma wàcce ko. Tapha Tine lan la ñëw na de mbër dañuy conseil rek moom moom diñ koy ñaanal rek. ci li mu jublu yàlla suturaal ko ci. waaye ko ndax mu ngi ñuy ñaanal di ñu teg ci ak si quoi li ci war loo ñun mu ngi koy def. ñu ngi koy san bu baax mbër ñu fi waaw ñu jàmm bu baax. lu wér wax sa mbokk yi ak ñi lay seetaan. ak ak waa di woo di woo. Tapha Tine di gaay yëpp Tafatine gars yi gars yi gis la waaye na ñëw fii nag Ndiaye bala ngaa wax Tafatine. na ñëw. daa war bis bi. waaw wëy ana micro bi génne nañu ko. Tafatine gars yi Dieye ñu ngi noonu ndeysaan mbokk lay koy na mbokk daa fort te Bamba deret la Babacar di profito di wéeru maire maire Colobane bi ak Assis Faye maa ngi koy woo mu ñëw jàppale jeunes yi jàppale gars yi ñu noonu la di ko di am ci kontaan rek lii moom xam ne kontaan la quoi mbégte la mais yéen ñaar am na ñuy wax ne yéen ñaar am na ñu may dégg ñu ne yaa gën a assuré Tafaat Ndiaye wax loolu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 yow yaay fóonal flag fayda seku waaw. ok li nga lan ngay wax promoteur bi tëgg combat aussi tamit moom naqari woon naa wutal adversaire moom Ndiaye Tine Fallou Ndiaye. waaw Fallou micro bi tàllal lépp. Fallou di ko sant. yëkkatil bi ko. sant yàlla quoi et puis di nuyu promoteur yëpp di xam ne xam nga on ensemble ñun ñëpp ñoo bokk ñoo bokk liggéey bi quoi. noonu la demee. jërëjëf.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 waaw di woo koñ bi yëpp sama gars yi ñoom ñoo gars yi ne ci kaw nii waaw mafia bi ci kaw yëpp maa leen di ziare wër waaw waa di sant Nebou Yaa Daan bu baax gis nga mu jóge ba Géejuwaay ñëw fii ah, participer ci bés bi ñëw bégal gars yi waaw maa ngi koy sant bu baax waaw di woo waa Castor gi yëpp yëpp yëpp waa marché Castor gi maa leen di sant bi ñoom Mbaye Ndourène